yow mu am xel mi yàlla baaxee ba ngay bëgg jël tarixa tijaan moo tax ma ne ayu ala aqil mu am xel ndax ko am xel rek moom la yàlla dimbale mu dugg si ci tarixa bi kon yow mii di ko xelu ki boo bëggee aqsal wirde jël wirde wii nga xam ne ak atijaan yi fa yushtaratu aleyka dinañ charte wanteeg yow qubula shurutil atiya nga nangu charte yi di ñëw awwaluha awwaluha ba ca njëkk an takuna musliman mooy doonal julit ndax duñ ko may yéefar أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبون وقيكت nga doon julit la lay def def nga nekk julit mooy nga seede ne la ilaha illallah muhammad rasulullah wa taamala salihan gannaaw nag loolu nga jëfee nag yu baax yi tënk la rekk waaye tënk bi nit mën na caa dégg lu yaatu ndax gëm ak jëfe mooy lislaam gannaaw boo waxee ne yàlla yàlla ne yonent bi moo ko yónnee nangu nga ko la ci def nag mooy am jëfeel jëf yu baax yi mooy defal farata yi te góorgóorlu ca naafale moom la ñu amalu saalih comme dama bëggoon nag indi lépp luy wax ju jub ju dëppoog li ñuy xamee tarixa bi bëgg indi aaya ya te du ma tudd aaya bëgg indi lenn ci hadis te du ko tudd damay wax rek la nga xam ne moo ëmb ñu déggee ne aaya yi wala hadis yi lii loolu lay tekki moo tax tënk la waaye kuy fecc na jël aaya ya méngoog wax ji wala hadis ya xam ne lu rek lañ namm kon doonal jullit te doon jullit mooy gëm yàlla gëm yonent bi jëfee farata yi saaniha chartaab ñaareel bay tax ñu jox nit kii tarixa tijaan mooy an tabxasa yow mi ko bëgg di ku xelu ki na nga seet an muqaddamin ci koo xam ne muqaddam lañ koy woowee kuñ jiital si idnin muy boroom ndigal saxihin bu wér ne am na ndigal fi talqiinil awraad yi ci joxe wirde yi nga xam ne mooy wirde tarixa tijaan wa taquda anhu nga jëlee ci moom lay wirde wa li takkoona ngir mu nekk raabitatu ko sag takku gi nga takkoo bi saydil juuti ci sangub nekk gi sangub àddina bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sag takku ci moom nekk takk goo xam ne saxiixatan bu wér la waasilatan bu jokk la wa waasiqatan bu dëgër la ndax kat duul ku neex rek mu ne jëloon naa wirde rek a tijaan maa ngi wirde mën naa maye wirde foog nga am digal koo may doog a nekk tijaan yow kon wutal ko am digal loola nga doog a jël ci moom wirde doog a nekk tijaan saalisuha ñetteelu charte ba an takuna mooy nga nekk muhaafizan ala salawaati alxams na nga sàmmante julli juróom fil jimaati di ko defee ca mbooloo ya wa ala awamiri shariati te di ko defee itam ci ni ko sharia digle wala wa ala awamiri shariati na nga sàmmwante ba te ak ndigalu sharia yi kulliha lépp qadral imkaani kem kattan dil julli tey julli ci mbooloo yi te sàmmwante ak ndigalu sharia yi tam lu ci nekk nga jox ko a xam kon ku matalul ay jullim teel na muy jël wér di tarixa tijaan doonal jullit matal la la ci lislaam ba pare wa shariatu wax nañ ne bokk na charte nga sàmmanteeg julli juróom ak ndigalu sharia yi ma ne wa shariatu sharia nag hiya moom ma ataana bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñu yonent bi indil boo déggee sharia rek mooy li ñu yonent andil min amrin ci ndigal la wënna yin ak tere ndigal yim ñu xamal ñu jëfee tere yam ñu tere ñu bàyyi boo déggee sharia rek loolu lay tekki qaala taala yàlla wax na ne xaafizu ala salawaati xaafizu ala salaati wa salaati al yàlla wax na ne xaafizu di wëttu na di sàmm hafidu na ngeen di sàmm na ngeen di fonk na ngeen di matal ala salawaati ci julli juróom wa salatil wusta ak julli gi nga xam ne mooy julli gu digg doomu gi digg doomu salatu wusta mooy julli gi ci digg bi mooy ban julli nag sàmm leen julli yépp waaye rawatina julli gi ci digg bi ban mooy julli gi ci digg bi borom xam-xam yi mag bari na luñ ciy wax ñii ne mooy tàkkusaan ñii ne mooy beneen ñii ne mooy beneen waaye daal siiw na ci li ñëpp ànd ne mooy julli tàkkusaan ndax sàmm leen julli yépp benn julli génn ci tàkkusaan sax ci la bu waxaatee rawatina tàkkusaan mooy tàkkusaan dafa naqaree matal ndax day fekk nit ñu bari nekk ci liggéey yoo xam ne bàyyi ko dem julli tàkkusaan day xaw di jëfe kon wëttu leen julli yëpp waaye rawatina tàkkusaan bi ngeen di ko wëttu walla boog nga ne dafa ëppati dara ci julli loo ci wax rek mën naa doon firim wut leen julli rawat na julli bu wustaat wa qoomu lillaahi qaanitiina te di leen taxawal nag julli yi lillaahi ngir nekkal yàlla rek qaanitiina ngeen toroxlul bu baax yàlla ci ba ngeen taxawee di julli jullig naa ko def te génne ci rek taxul ñuy wax jullig guy toroxlul yàlla lañ bëgg nga def ko moom la alxuraan di wax kon ba tey aayaa ngi wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu sharia lay ne mooy lii ay yama koy dimbandekoo yamay dimbandekoo ci wax jooju lii la wa ma ataakum rasulu lu leen yonent bi indil fa xuduuhu na ngeen ko jël tee ko waaye wa ma nahaakum anhu lu mu leen tere fantahu bàyyi leen ko ashuruutu kulluha muhimmatun wa akidatun charte yi bari na de te charte yépp nag ñoo am solo lool wa akidatun te ñoo gën a feddale ku ñu war ko sàmm walakin waaye nag ahammuha yi ci ëpp solo wa akiduha te gën caa feddale ku ñu war ko sàmm hiya moom athalathatu taaliya mooy ñett yi di ñëw allati ñett yi nga xam ne tooradu danañ koo wax danañ ko gaaral ala axisi tariqati kii jël wir tariqa tijaan danañ ko ko wax ba mu leer ko ind talqinihi fañ koy sayee lay wir wa bëgg naa jël wir de tariqa tijaan ñu xamal la lay charte ya qabla al i'ta njëkk ñu ko koy jox lañ ko war a wax charte ya wa mukhalafatu wahidin minha bàyyi lenn ci charte yi بعد القبول غنا بوم كو نانغو والأقسي غنا بوم كو نانغو با جيل ويرد وي نين تقطع المريد دا فاي داغ طالب بي اني طريقه تي طريقه تجان فين قطع مو داغ باتاي موميتم بذلك تي لولو عن رب اني رباتي تي تاكوغا الذي تاكوغا غا خامني كان يستله كان يستله دون كو جوكلي حقا دغ دغ جوكلي بي سيد الوجود تي سانغو ادي بي دي يونتبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرت غنابم صوبو fi silki tijaan yi ne ci biir mbooloom tijaan al mubashirina ñi nga xam ne bégalee nañ leen bi saadati daaray ni ci texeeg àddina ak àlaxira bu defee benn charte yi rek da koy génnee ci mbooloom tarixa tijaan miñ bégal miñ bégalee ne danañu am texeeg àddina ak àlaxira qaala sayiduna radiallahu anhu moolaana Cheikh Ahmad Tijaan nee na kama fi jawahiril maani te wax ji kat ci biir jawahiril maani lañ koy fekk qaala nee na mu ne xaala lii wax na ma sayidul wujudi sangub àddina bi di yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ma ne ashaabuka ashaabi wa fuqraauka fuqraai wa talaamisatuka talaamisati nee na ma yow ahmada tijaani ashaabuka mboolem ñi la tànn ngay seen àndandoor ci yoonu yàlla ashaabi ñooy samay àndandoor man yonent bi wa fuqraauka ñi soxlawul dara lu dul yow rek lañ soxla soxlaa la bëgg nga yeggal leen ci yàlla fuqara yii man rek lañ soxla wa talaamisatu ko ñi nga xam ne dañuy sàkku ci yow njubug nga man leen a mat ñu yegg ci yàlla namm ci jaam talaamisat yi man lañ doon samay taalibe ci loolu kon taalibeeb cheikh bi taalibeeb yonent bi rek la anandooru cheikh anandooru yonent bi rek la ku soxlawul ku dul cheikh dëgg la yonent rek nga soxla ba tey rabi'uha ñeenteel bi ñeenteelu charte yi wa huwa al awalu ñeenteelu charte bi yi ñuy bëgg a lim mooy bu njëkk ci ñett yi nga xam ne mooy dagg ci tarixa mooy aqusu wirdin jël wirde min awraadil machaayix ci wirde sëriñ si allazimati fi turqihim wirde nga xam ne dafa taxoog seen tariqa ya nga xamne kuko jël rek ci ci tariqa boobu nga bok nga jël ko alal wirdi ci wirdi wi nga xamne ne yi loolu mo charte bu njëkk bi ku jël wird tariqa tijaan nañ ko wax ne ko boo ko jëlee jël wird daa beneen tariqa de dalika lu tax lii ñu wax ne ku ko jël dootoo jël wird ab tariqa beneen li anna xubbal ittilaa bëgg foo toll di yurndu di uti wa kasratil intiqaali ak bari looy toxalu di dem feneen di yóotu ji xablal ma yuharrimul mar'a bari na bu mu min wujudi haqiqatil faida jot dëgg dëgg lay njëriñ ku bëgg a jëriñu doo toll fu nekk fu yaa ngi toxoo fii dem fële dem di wër rek ku bëgg a jëriñu boo melee nii néew na nga jëriñu waqat xiila waxeef na xadiiman ca jamono yu njëkk ya mag ñi daan wax wax joo xam ne xawlan wax la joo xam ne naafi an bu jëriñ la li kulli man yu'tihi i'tibaaran ku jàpp wax ji jox ko dayoom ku fonk wax ji dana la jëriñ wax jooje mag ñi daan wax ci xadiim ban wax la mooy ilzam taqool ilzam baaban waahidan tuftax laka alabwaabu waqdaa li rajulin waahidin taqdaa laka riqaabu ilzam baaban waahidan dil taqoog benn buntu boo taqoog benn buntu tuftax laka alabwaabu buñ la ubbilee buntu boobu rek ubbil la mboolem buntu ya waqdaa li rajulin waahidin àndool ak benn waay rek ci góor yàlla yi rafetal sa àndoog moom boo ko defee de tax da laka riqaabu mboolem ñëpp nañ la toroxlul mooy mboolem ñëpp nañ la nangul benn bunt bu mag bu matale nga topp ko mu ubbeekul la bunti xiwal ak jàmm yépp na la ci ubbeekul benn nit yàlla bu yàlla baaxe nga topp ko ba yeggale la ci lañu ñu namm ci toppee ba nga am ci moom ngir ngërmande yàlla nee na dana la may mbooleem nit yàlla yépp bëgg la topp la kon nag wax ji loolu la fii nag Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waxoon na ci wax joo xam ne baax na ma dolliwaat ko ci ilzam baaban waahidan tuftax lakal abwaabu taxool ak benn bunt ñu ubbi la ci bunt yépp bàyyi da ca doon wax mu ne ilzam baaban waahidan laa tuftax تفتح لك الابواب واخضع لرجل واحد لا لتخضع تخضع لك رقابه تقبل بين بنتو تجيب له وتي نيو اوبيل بنتي دنكو توبي غير يالا رك موني بنتي يب دالا تي اوبيكول اندولك بن غور تجيب له وتي نيو اندوك يو جيب له وتي ام نيت ييب waaye da nga caa jublu àndoog moom ngir yàlla rek boo ci amee yàlla am nit ñi ñëpp kon li muy rafetal ci wax ji rek mooy la nga cee def def ko ngir yàlla mais bul ko def ngir lañ wax ne boo ko defee am ko ci rek ci ngëneelu àddina kese wa xaqiqatul baabi dëggi dëggi bunt bi yastaxiqul iltizaama nga xam ne war nañu taqoo ko wa baabu taqwa mooy ragal buntab ragal yàlla بنت بنيب وارا تقول موي بنت بركة يلا الذي موي بنت بنيا قمنا هو المنفذ الوحيد موي جل واي بنيا قمنا موم ركلا نيت من جل إلا الله تعالى دم يلا كطريقة تجانية مونغي ملي طريقة تجان موي بنت بي وحقيقة الرجل دقي دقي غور جين وارا توك nga xam ne yel zemul xuddu lahu war nañ koo almuaasaru mooy wëllu yàlla wi nga xam ne moo gën a mag ci wëllu yàlla wi ñuy jamono wanteel allazi ba nga xam ne moom góor yàlla googu ci sa jamono nga mën ko topp di jëriñ ci moom xaqiqatan dëgg-dëgg yëkkoonu xalifatan li cheikh atijaani radiallahu anhu amin dëgg-dëgg góor googu boo xam kan la mooy xalifa sa jamono rek moom Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu amin xaamisuha juróomeel ba huwa huwa saani min asalaasati mooy juróomeel ci charte yi waaye mooy ñaareel itam ci ñett yi nga xam ne moo mën a dagg nit ci tarixa bi ci ku ko def mooy ziyaaratu waliyin ziyaarab waliyu min al awliyaa ci wali yàlla yi al xayri tijaani yi na ولي وخمنا دوتي جان نغا زياريكو الاحياء منهم نيتاي دوند والاموات ولا بوكي نيتاي ديلا نغا زياريكو لي عرض الاستمداد نغير بوتي تبو تي موم لولا داي داغ تيجان بي الا الانبياء لولن نغا جوك دي زياري جي اي يوننت لولا تاخول ني واخ واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ilal anbiyaa wa ashaaba rasulillahi sallallahu ba tey itam saxaaba yonent bi koo ca dem di ko ziyaare ji taxul nga dagg ci tarixa tijaan waqat sabata wér na ne ana ziyaarata ziyaarataani wér na ne daal ziyaara ñaari xeetu ziyaara la ziyaarata tazayudi wa ziyaarata tazyidi ñaari xeetu ziyaara moo am ziyaaraab ut dolleeku ca ka ngay ziyaara ak ziyaaraab yóbbul dolleeku ka ngay ziyaara ji almamnuatu fi tariqati ziyaara biñ tere nag ci tariqati yan hiya ziyaaratu bi niyati tazayudi an gayri waliyin tijaaniyin xayyan kaana aw mayitan ziyaara bi ñu tere ku koy def mooy ziyaara bi nit kiy ziyaara ji kudul tijaan te yéenee uti ca moom dolleeku moo xam nag kooka ngay ziyaare ji kuy dund la wala ku dee la boobu xeetu ziyaare lañ tere saadisuha juróom benneelu charte yi wa huwa athaalisu min athalaasati te mooy ñetteelu charte yi nga xam ne bàyyi ca benn day dagg ni ci tarixa bi mooy tarkul wirdi tijaani yi baada aqatihi tarkan kulliyan jël wir tariqa tijaan dem ba mu nga yëg ci sa xol nit wird wi nga jëloon daal amatul solo nga yëg ko ci sa xol wax ko ci sa lamañ wala wax ko sa lamañ waaye yëg nga ko sa xol bàyyi nga wird wirdaatuloo ku def loolu dagg na bu demaatee ba bëggaat sax jëlaat kurus taxatul mu nekk tijaan ndax daggoon na ba mu fokk na bees juwaat faqad qaala wax na الشيخ الختم التجاني رضي الله عنه مولانا شيخ التجاني luy firndeel lii ñuy wax ci charte yi man aqasa wirdana ku jël sunu wirda wa tarakahu mu bàyyi ko tarkan kulliyan bàyyi gu mat aw tahawuna bii wala mu doodal ko bi bii l uqubatu dana ca ala ko alkande dina ko ci ñëwal way atiyil xalaaku te itam alaku dina ko ci ñëwalee lii la Mawlaana Cheikh wax wa taarikul wirde kiy bàyyi wirde wi na xat taraka ahama awamiri rabbihi fil tariqa tijaan ku ko bàyyi kay la gën a am solo ci ndigle yàlla ndigle yàlla yi ci alquran la bàyyi te yooyu ndigle moo yan wa huwa al wa salaatu ala bàyyi tariqa bàyyi na astaghfirullah bàyyi na salaatu ala bàyyi na la ilaha illa te yi ndigal moo gën a rëy alquran di ko wax وهو كذلك لم يوف العهد الذي عاهد عليه شيخه عند الاخذ تيت كيغا خامني مو باي شرطي مو باي يوت ريخ تيجان نا خامني ماتالو الكولري غاغا خامني موم لا كولري وونتي وون اك سيرين بيكو دون جوخ ويرتا بوم كوي بومو جيل ويرتا وا تا والله يالا تعالى يقول يلا مكو يم واخنا ني واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا دي لين ماتال كولري ndax كولري لو نيو لاج لا charte wante woon nga ak sëriñ bi jox la lay wirde ne dootoo ko bàyyi nga ne waaw kon ku ko bàyyi matalul kóllëre te yàlla nee na matal leen kóllëre ndax kóllëre dañ koy laaj ba tey waqaala yàlla wax na ne inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yaddullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima aahada alayhi llah fa sa yutihi ajran azima alquran nee na inna alladina yubayiunaka ñiy jaayanteeg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama yubayiuna allaha yàlla leen jaayanteel ci biñ lay jaayanteel yaddullahi fawqa aydihim nasiba ku bari cër la min fadlillahi ci ci mayu yàlla yi waaye nag waman nakasa ki nga xam ne kii moo bàyyi fa innama yankusu ala nafsihi boppam la bàyyi boppam la wuruj fa yasbahu baidan dana mujj di ko sori min allahi ci yàlla baadal qurbi gannaaw bu mu jegee wa maslubul ifdaali ku ñangu ngëneelam la baadal ataa i e gannaaw buñ ko ko mayee aazana allahu yal nañu yàlla musal min al baadi baadal qurbi yàlla may ñu ñu jegee ba ñu yëg ne jegee nañu yal nañu yàlla may gannaaw jege googu ñuy soreeti wa mina salbi baada la ataa i yàlla may ñu ba njëg ne may nañu muy nangu may ga yal nañu yàlla musal ci loolu wa wafaqanaa yal ñu may ak dëpp fi kulli xawlin ci lépp lu ñuy wax rek wa amalin ak lépp lu ñuy jëf mu dëppoo ak lima yuhibu muy la yàlla bëgg wa yarda ak la nga xam ne mu la yàlla gërëm wa jaalana nañu def moom yàlla min akabiri ahli alqususiya ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo yore cër yu mag yi bi hadihi tariqatin maymuna ci tariqa bu baax bi al ahmadiyatil muhammadiyatil ibrahima tariqa bi nga xam ne dañ koy dàkkantele ci ahmadu muhammadu ibrahima intahat shurutu thalatha fi mooy yem waaye ñett charte yi nag al ahamu ya gënoon a feddaleku wal aakidu nga xam ne moom lañ gënoon a charte wanteeg kii jël mu sàmm wanteeg moom ولتي موي ييغا خامني تعرض على الاخذ دا نكو واخ كي جيل ويرد باد اسي بات ان فموي تامبالي لب نياك ني كوي جوخ دارا لي لنج شاف تاونتي وون اك موم تي تامبالي تامبالي با سابعها جروم نياريل با تي شارتي ان تكون محبا للشيخ احمد التياري رضي الله عنه وخلفائه الوافين موي kii jël wird wi na bëgg Cheikh Ahmad Tidiane bëgg mboolem xulafaaw Cheikh Ahmad Tidiane yi ثامنها جروم نيتيل با ان تكون بارا للوالدين ومحترما لكل من ينتسب الى شيخ رضي الله عنه جروم نيتيل با موي نا باخي ñaari way juroom te na warmal képp ku aju ci cheikh tidiane itam تاسعها جروم نينتيل با ان تكون حسن الاعتقاد في الطريقة وكامل التصديق بأن, بأن كل ما ذكره شيخ التجاني من الفضائل لأهل طريقته وعد صدق لا محالة فيه من صادق الوعد الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم juróom ñeenteelu charte bi mooy kii jël wirde wi mu ne يومي دي جيل ويردوي di jël رافيت نجورتو ci tariqa tijaan ne lépp lu luñ ci wax rek mu ngi ci ci ngëneel tey it da ngay dëggal lépp lu Cheikh Ahmad wax ci tarixam bi rek ne dëgg dëgg loolu mooy li am ci tarixa bi ngëneel yi ñu wax ne ku nekk ci tarixa bi am na ngëneel yi na xam ne ngëneel yooyu yëpp digg la bu jógee ci ki nga xam ne lu mu digee rek dëgg la ndax moom du wax mukk ci bànneexu bàkkan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëmal ne lépp tarixa bi rek شامت جان وقت جين تبي لجاء لا شك أن من أحسن الاعتقاد في الطريقة وأكمل التصديق بالشيخ يجد أكبر حث من مزية معية الصادقة الخالصة بالإسلام وبطريقتي أمول بن سكن كيف كرفت النجرتم في طريقة جان متى الأدقم تشيخ عندك شيخ dana am cër ba gën a rëy boo xam ne danañ ko amee ci àndandoor gu dëgg gu ñuy àndoo ci lislaam àndoo gu dëgg gu ñuy àndoo ci tarixa tijaan ndax yàlla moo wax ne walladi jaa bi sibqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquuna lahum ma yashaa'uuna inda rabbihim dalika jazaau lmuxsinin liyukaffira allahu anhum aswa alladi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladi kanu yacmaluun alquran moo wax ne ki nga xam ne moo indi dëgg di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg gi di lislaam wasadaxa bii ak nga xam ne moo dëggal dëgg gi mu indi di aboubacar saddiq mi ko njëkk gëm wala keneen ku mën a doonati rek gëm yonent bi ci lii di lislaam yàlla nee na ulaikumul muttaqoona ñoom ñooy ñu ragal yàlla yi ñoom ñooy ñi nga xam ne dinañ am fa borom lépp loo xam ne lu ñu bëgg la te ñoom seen faykat lu rafet lay doon lu leen yàlla di fayee te it yàlla da leen di dàqal seen lu ñaawul lépp seen li gën a ñaaw ci seen yu ñaaw rek yàlla da leen koy faral te dina leen fay itam fay gu gën a rafet lañ daan jëf ci lu baax hashiruha fukkeelu charte yi an tajtamia ma al ixwaani lil wazifati wa dicri yowmi aljumaati kama tajtamiu maahum li ak sa mbokki tijaan di wasifandoor ak ñoom di àndoog ñoom it def zikru juma ni nga waree di àndoog ñoom di julli julli juróom ci mbooloo haadi ashriha fukkeel baak benn an laa taqraa jawharatal kamaali mooy bul jàng jawharatal kamaal illa bi taharal maaiya lu dul da jàpp da laab-laabu ndox ma yaqiini bi huduri sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam inda al marrati al saabiati min al jawharati ila inqidaai wazifa benn mooy jàng jawharatul kamaal mukk lu dul da ngaa laab-laab goo xam ne ci ndox la mooy danga ngaa sangu ca ngaayal ndem war na la walla danga ngaa jàpp njàpp li ñu xam waaye bul ko jàng mukk ci tiim di jàng jawharatul kamal fukkeel ba ak benn daal mooy di laab laabug ndox ànd ak nag di gëm ni fa ngay wasifa wala fa ngay defee hadratul juma yonent a ngi teew sallallahu alayhi wa sallam boo yegsee ci perob juróom-ñaareelu jawharatul kamal ba ba ngay paree wasifa mu ngi teew ak yow ak boo tàmbalee hadratul juma ba ba ngay noppee mu ngi teew ak yow booy wasifa yi gëmal loolu thani ashriha fukkeel ba ak ñaar an laa tatahaawana bil wirdi aw an tuaxirahu an waqtihi wa huwa waqtun waasiun fukkeel ba mooy bul doodal wirde wi di ko sàgganee ca waxtu ya ko war a defee di ko yéexee ba waxtu wa jàll ànd ak waxtu ma lu la loola bokk na ca charte ya bul ko sàgganee thalithu ashriha fukkeel ba ñett موي ان لا يصدر منك في جانب شيخك الوصيل الى الله ما يبغضه من كلام قبيح او فعل فاحش فكيل با اك نيت موي بول فخه موك با كيغا خامني موي سا وسيله بلا ييغلا سي يالا nga di ko merlo bul ko merlo ci wax ju ñaaw bul ko merlo ci jëf ju bon andol ak mum ci num gëna rafété rabi'u ashriha fukel bak ñient أن لا تقاطع أحدا من عباد الله المسلمين وبالأخص إخوانك في الطريقة فكيل بعدين تموي موي كن تجلبني كين أجلبني جوليت رواتنا نك سيمبوك في سي تاريخ تيجان بولن دوغو موك خامس عشرها فكل بعد جروم an taxtarima kulla man yantasibu ila cheikhi la siyama ahla ahlal xususiyati minhum mooy ni na nga wormaal képp koo xam ne askanu na Cheikh Ahmad Tidiane rek rawat na nag ñi nga xam ne ñooy borom jagle yi ci ñooñ tarixa bi saadisu ashriha fukkeel baak juróom benn mooy addamul amni min makrillahi taala ومن ليس ذا خسر يخاف من مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فكل بقرم بان موي بولدي ساقنك بي وولو كحم الله مكر الله بولين وولو مكر الله ne nag tijaan ku ko doon texe nga ba faw tax nga bàyyee def lu baax lépp loola ku koy def na xam ne mu ngi dugg ci loo xam ne wóolu makrullahi la te kat ku dul borom pertement ku narul perte du wóolu mukk mbirum yàlla fa toll da ngay foog taqoog la nga xam ne mu la yàlla bëgg waaye yéeg ne lii ku ko def am na am na lu baax rek nga def loola bàyyi yu baax yépp sàggan nag ne doyloo naa loola wóorul ndax yàlla nee na afa aminu makrallahi ndax dañuy wóolu makrullah dañuy wóolu soppeek yàlla mbir yi fala yamanu makar allahi ila al qawmul xaasiroon ku perte rek mooy wóoloo yàlla noonu kon bu leen doon ñuy perte ñu wax ne baax na nekk leen ci tey gën a baaxal rek gën a baaxal rek waaye def naa lu baax li ñu wax ne ku ko def am na lu baax naa sàggan ci la ci des lépp loola ka kay def mu ngay wóolu boppam te loolu wóorul loolu mooy sartaab juróom fukkeel bi ak juróom benn سابع عشرها فكيل باك جروم نيار أن لا تتصدر لإعتاء الورد من غير إذن صحيح فيه والإذن الصحيح يأتي من الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه مباشرة أو ممن وجده منه بواسطة بواسطة سلسلة موثوقة فكيل أجروم نيار تشارتهي تموتي مجي تين أندي mooy fexeel ba bul doon koo xam ne dangay wax ne am nga ndigal di maye wirde te amoon ndigal la ci borom ndigal yi te ndigal ñoo ngi koy jële ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ñu jëlee ko ci ku jëlee ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mu nekk jokkuwaay boo xam ne bu wér la bu dëgër la lu jara xaman googu jël wirde wi ñu may la ko taxul nga am ndigalu mën ko maye bul def mukk loola boo bëggee maye daal na fekk ne am nga ndigal ci Cheikh Ahmad mu joxal la ko boppam walla ku ko jëlee ca moom wala ku ko jëlee ca ku ko jëlee ci moom boobaa ngay dog a am ndigal maye da koo may Tidiane la ni nga doonee Tidiane kon lii mooy charte nga xam ne moo war a nekk ci xelu képp kuy jël wirde ne war na sàmmwanteeg moom polisi tv, ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéen ay liggéey fay du baay bi si barahama Kossy TV am jarama yéen ñi ànd ak baay yéen ay liggéey bi si barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV